dañoo ñëw Kaffrine ñaari fan yi pour faj nit ñi loolu nag madame Marème Faye Sall moom moo bi moom moo ñu instruire depuis deux mille euh, octobre deux mille seize pour ñu wër Sénégal yëpp pour dem di faj nit ñi fu ñu fu ñu dëkk ci loolu ci cadre boobu <laughs> lañ ñëwee Kaffrine pour euh, faj nit ñi ci biir Kaffrine même bu ñëwee fi aussi euh, kon il faut ñu sant gërëm euh, madame la première dame madame Marème Faye Sall bu mu ndax initiative bu mu am ñu gërëm aussi ñi nga xam ne ñooy organiser consultation yooyu parce que organisation bi dafa jaar yoon rafet na trop gis nañ ne logistique bu ñu àndal bi Euh, buñ fi fekk ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ba colonisation Diané dañuy gërëm aussi population Kaffrine parce que ñun kat bii mooy xaw ma ñaata édition yu ñu def ci biir Sénégal wante luñ gis Kaffrine vraiment daf ñu dañ ko rafetlu parce que nit ñi dañoo discipliné duñu fay nekk di di xëccoo ñu yombale ñu suñ liggéey vraiment maa leen sant di leen gërëm di wax ne buñ fi ñëwee ñaari fan yi daanaka feebar yu ñu gis si biir Sénégal yëpp moom lañ gis Kaffrine kon nag Sénégal benn la feebar yooyu en général feebar yi hypertension artérielle la diabète feebar métit yi yax feebar AVC séquelle AVC feebar feebar yi bët ay glaucome ay cataracte ak feebar yoo xam ne métiti biir la luñ ci mën a ràññee mooy ñaari feebar yoo xam ne il faut moo wax ko ci wolof mooy feebar yi tension ak feebar diabète dañ seetlu ne ñun ñun euh, suñu race bi dañoo xawoo a suñ xorom ak suukar bëriwul trop te gis nañ ne euh, ñun ñii kat euh, suñ ñam yi dafa saf xorom trop dafa saf suukar trop loolu moo tax tension bi bëri ci population loolu moo tax également jabet bi bëri si wa ma profité si occasion pour wax lancer benn message population yi il faut ñun ñu jàng di lekk ñam yoo xam ne saful xorom trop ñu jàng di lekk ñam yoo xam ne suukar bi ëppul parce que loolu moo mun a tax feebari diabète bi wàññeeku loolu moo mun a tax feebari tension bi wàññeeku kon buñ fi ñëwee ci édition bi daanaka di nañ na seet nañ démb lu mat junney nit tey lu ñu gis fii dina ëpp junne kon ñaari fan yi dinañ seet ñaari junne ak lu topp ci nit ñaari junne ak topp lu topp ci nit buñ ko buñ ko consulter daanaka ordonnance mun ngeen ko xayma ku ci nekk war na am ordonnance boo xam ne am na ñetti garab bu nekk du desu loolu rek am na ay actes yu ñu koy defal ku nekk war na am benn acte ak genn wàll acte médicaux ça veut bu ñu seetee lu mat ñaari junne nit dinañ def lu mat ñeenti jun ñeenti euh, junne actes médicaux kon nga war a xam ne consultation bi vraiment euh, euh, consultation bu rëy la euh, loolu yëpp fondation Servir le Sénégal moo ko defar en partenariat avec ñi ñu fi fekk notamment le DG du COUD monsieur Ablaye Sow qui nous a beaucoup appuyé dans cette consultation la en même temps moo ñu assurer logistique bi ak ñii nga xam ne ñoom ñoo fi taxaw yëpp kon vraiment suñu mission fondation bi daanaka mun nañ wax ne en tout cas Kaffrine mission bi remplir nañ ko comme il le loolu nag il foog man ma sant gërëm population yi sant gërëm ñi yore comité d'organisation bi sant gërëm équipe bi may àndal parce que équipe bi may àndal <coughs> ñoom non seulement ay responsable lañ ay médecins de haut niveau lañ ñoom ñëpp ñu la plupart ay jàngalekat yi université lañ mais du tere à chaque fois buleen leen fondation mobilisé ñoom dañuy d'accord ñu ànd def faj nit ñi bu baax kon nag euh, maa ngi sant di gërëm également ñi nekk ci logistique bi ñi ànd ak ñun euh, depuis euh, ñi yore camion bi ñi ñuy dimbale yëpp di sant di gërëm aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci pharmacie bi parce que gis ngeen ne bu nekkee kuñ consulter war na am lu ma ñetti garab buñ ko waree jox ñetti garab yi di ngeen mobilisation bu ñu moo taxoon man tout à l'heure ma ju obligé bàyyi li ma doon consulter dem ci pharmacie bi pour jàppale leen en tout cas yi maa ngi leen di di leen gërëm di rafetlu euh, suñ ñëw Kaffrine bi di leen wax ne ñu ngi ñaan yàlla ñu bii ñu multiplier ko édition yu mel nii di ñëw Kaffrine parce que population Kaffrine gàcce ngalaama